3S Pro. lamb la bëre dóor la ñu wax bu laajee bëree ñu bëre bu laajee xeex ñu xeex ñaari bi la ñuy yóbbu foofu mais lu mu laaj rek loolu la ñuy def yaay diriger wala arbitre sifflé nga def li nga bëgg a ko xaar moom ndax moom li mu wax bu li ni mu waxee bu ko defee làmb dina gaaw trop insha allahu rabbi parce que nee na boo taxawee man moom du ma taxaw moom man moom du taxaw moom damay ñëw moom damay ñëw waaw du ma taxaw moom xam na ko sax waaw pour ma gën ko ko yombala dox ah, xeex wala dox bëre ah, lu mu laaj rek mën naa dox jàpp mën naa dox xeex lu mu laaj rek loolu moom yeggaguñ ci parce que xaw moom nu muy def mais daal bu li mu wax moom. Hmm. ma wax ko ñun ñaan bu buñ ko jëfee dinañ teel a libéré gars yi seetaan lamb bi. Hmm. kon combat bi du gaaw du yéex daal ah, li mu wax daal bu ko defee man li ma wax moom dinaa ko def mais moom li mu wax bu ko defee daal xam naa ne dina gaaw incha allah. boo defee runkum daje nag ku ci daal rek bu boobaa dinañ xam. ok léegi ci côté entraînement yi gis nañ ci koor lañ nekk bu baax. Hmm. te lamb ji suma dund dañuy wari rek. ngeen ñëw amul amul ay affaire individuelle yooyu ñun dañoo nekk dañoo dañoo am ay kilifa ñooñu yor perkat yi nekk suñu côté ñu nekk Fass lépp lu ñuy def ci faas lay basé wu lépp lu ñuy def foofu lay basé wu amul loolu ñu ngi liggéey normal li ñu war a liggéey di ñaan yàlla journée mu may ñu ndam incha allah rek waaw. Euh, mais nag euh, bala ñu la bàyyi ndax xam naa ne tey moom daf ñoo xaw a kii dañuy dañuy. xaw a kii quoi côté poids bi côté poids bi. waaw côté poids bi waaw gis naa ne dafa dafa gis naa ne da nga wàññi poids. lu sabab loolu. waaw man man loolu moom loolu moom liw ma ci ndax damaa nekk samay coach rek. Mm. di entraîné defal li lañ ma wax bàyyil defal li bàyyil waaw. loolu ñu la wàññiloo quoi ci ñoom lay baadoo damaa nekk ñoom daal defal bàyyil rek man laa am. mais am na loo sant ba gis am am na loo sant sa parce que ku la gisoon bu njëkk peut-être il y a 2 3 mois si ginnaaw ak xam na ne tey euh, dégraissé nga. Mm-hmm. waaw waaw xam naa noonu la affaire yi moo ko laaj rek moo tax ñu liggéeyee noonu. Mm. waaw. ki ko doon nëbbatu lii lan moo tax nga nëbbatu Quench dafa sob wala da ngay da nga bëgg a nëbbatu Quench wala jour ndax gis nañu Lagos dafay nëbbatu trop. non non pourtant nëbbatuwu ma nag de nëbbatuwu ma de fi ma doon nekk laay nekk ni ma doon doxee laay dox ni ma doon dundee. noonu laay dundee def regroupement. waaw man ni ma mës di doxee noonu laay doxee waaw mhm. nëbbatuwu ma. Mhm. li ma waxoon sànq ñu gis benn xale boo xamante ni Ada Fass dafa taxaw ne Lac Rose moom mooy mm-hmm. mm-hmm. takk euh, deuxième femme non dañ ko daan mu takk ah, dañ ah, ko daan ah. même pas un mois waaw mu takk jabar ñib yu même pas un mois encore uh-huh. mu takkaat ñaareel coow li bëri na loolu te nee na yow yaay idolam idole boobu noonu muy woote woo sa diggante ak moom tey am na ay conseils yuy tukkee si yow ay xelal di jëm si moom wala moom mooy demee xele boppam rek fu mu toog naan waaw côté coow lekk yi demoon ak yi muy def yëfaxaale yi muy def waaw aada moom xale la moom moom booy la amaana am na xelu xale yu koy jàpp ak yooyu rek mais daal li ma ci mënta sori mooy ci vie privée moom mënu ci dugg quoi boo ma ma laajee nag lu jëm ci préparation làmbam wala ci làmb mën naa ci wax mhm. mais ay ci ay jabaram ak yooyu moom mënu ci sori waaw coole comme ni mu nekkee xale nekk li nga xamante ni tey waa Fass mhm. am ci moom yaakaar mu nekk xale boo xamante ni macha allah mhm. tey coow li topp ko mu war a bëree xam nga loolu nan nga ko gisee te moom yaay idoolam mais tamit en tant que sarak ban conseil nga ko jox waxuñu sax ci vie privée bi mais nan gisee ko waaw man man man li ma koy conseillé wala ma war ko ko wax tamit yaakaar naa waruma taxaw fii tamit hmm. naan lii laa koy conseillé wala lii laa koy wax loolu dinaa ko wax hmm. wala ci lu may wax ak moom lay nekk hmm. mais daal li mu dëgmal nii muy combat bi mu am yàlla na ko ci yàlla suturaal may ko ci ndam waaw xale la nag waaw xale la na ko yàlla taxaw sàmm ko Ah, ba ñu muy àndal ba ñu am nañ moom benn malentendu la te am na booy yi nekk mais ban message nga leen di jox comme que nee nga xale nga xale la ak côté staff am ñoom ñëpp mais en général quoi ban ban message nga leen di jox yi ñu jàppale ko rek parce que gémmiñ bi nàcc du wax jàmm te ku la yéene jàmm moo lay mere ba lay wax yenn affaire yi moom tamit mu xam loolu gars yi dañ ko bëgg rek moo tax ñuy doxale ak noonu moom ki nga bëgg nag mun ñoom bu ñuy wax sax da ngay xam ne bañuñu ko. dañoo xër ci moom. voilà dañoo moom rek. loolu dina réglé wu day féete côté incha allahu rabbi dina réglé waaw kon wala woo euh, <laughs> nga ko wax wax boobu tamit loolu wax nañ ca ba pare gars yi déggoo su may koosee aada hmm. wala ma koy woo wala may wax ak moom wala ñuy déggante du lu may toog fii nii ay caméra tiim ma ma koy wax hmm. loolu man la ak moom di ngeen def bootam biir nekk. waaw loolu man la ak moom waaw. Hmm. waaw oh, ñu ne Ada Fass dafa xaw a yor kiw xaw kiw Lac Rose ndax coow la mu amoon. estilam xam nga man moom mooy loolu. bu la neexee nga koog ma. estilam non non garaaw da ngeen yow man nga fi fekk de. waaw bu yeboo. waaw amul la rose meloon au début. coow bi ko toppoon man na laa meloon. non yow coow dafa macha allah comme coow bi ko toppoon. waaw comme ban coow bëri coow. bëri daal man boo bëri coow. xam nga ñu ne début boobu li la kii woon instant bi moo topp Ada Fass ci lépp nag. waaw yàlla na yàlla na nekk lu ko jik yàlla na nekk lu ko jik suñ borom jubóole koog mbooloo bi. Hmm. ba ñoom ñu comprendre ko ba ñu melaat kom ni meloon ci barke yonent bi waaw côté mobilisation mbër bi ngay bëril mën nañ ne tey bu nekkul P nekk 2 kon quoi qu'on puisse dire zone noire moom yaakaar naa ne Sénégal moom nit ñi dañ ko koy dàkkantele te Lac Rose moo nekkaan moo nekkoon le roi de Demba Diop nekkoon booy est ce que tey Lac Rose bi ni mu daan mobiliser Demba Diop est ce que mën nañ xaarandi Lac Rose mobiliser ko côté bii nii parce que aussi dafa mel ni euh, sa dëkkuwaay aussi am na yu si soppeeku fi demee noonu est ce ci war a def yëpp ñu ngi koy def liñ ci war a def yëpp ñu ko ciy def hmm. ñi ko war a def ñu ko def ñoom Alaaji Cuun Bob Marley Pape du Booy Mbaalo xam nga gars yi ñu ngi ñi ci war a nekk daal ñoom ñi ngi ci nekk man liñ ma sant mm. fi mu nekk nii mm. mooy entraîner récupérer entraîner récupérer waaw te NGB laa dëkk nag loolu rek laa ci wax waaw mais yëmbal tamit si léegi nii rek maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu mm. ñoom tamit ñu ngi leen di woo ñu ngi woo ñëpp foofu waaw ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw bi première journée suma jur nekk xale di soog a dugg ci nga xamante ne moom mooy ci wàllu géewu làmb hmm. euh, moom tamit jàmbaar la quoi jàmbaar la moom dañ koy ñaanal rek moo xam li mu bëgg ci bis bi yàlla na suñu borom def réussite hmm. xam nga mu nekk mu mu jaar fii di tëgg combat bu mu tëggati mu nekk ay combat yu mag a mag a mag ci barke yonente bi hmm. waaw waaw ah, kon na woote rek laataa moo tàggatoo waaw di di di di woo waa NGB rek comme ni ma koy defee rek di woo waa waa Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie benn tali Colobane Fass Gueule Tapée yi Géej ñoo ngi woo ñëpp di woo sama mbokku lébu yëpp tamit di leen wax ñu sànni ñaan baax di woo waa Wakaam sama sama papa Mbaye Gueye Dieng xam nga di woo sëñ Saliou benn benn benn kii barke alxuraan hmm. waaw yéen yéen yéen yéen ñun saa yéen duñ dem yéen a fi nekk <laughs> di woo Saliou bu baax di woo Saliou Fall ak Tarba tamit instant bi dafa tiit quoi. <laughs> ah weer bi nag dafa weer bi nekk ñeme de. alam lépp kon sa bëree moom boo nelawul sax seen mbokk duñ nelaw. nee ma ñan laay xalaat. Mm. moo ñaay topp sama ginnaaw ma yëkkati ci kaw mm. ñu naan ma la. wala maam ji waaw waaw waaw. <laughs> maam ji ñibbisi bi daal lay xalaat ñibbisi bi surtout ñu koy gàttal waaw loolu yëpp da koy xalaat. loolu tam pression lay nekk ci di xam na loolu baax loolu baax na loolu yow du lay def pression dama koy xalaataaleel ñooñu waaw <laughs> moom nga koy xalaat wala ñoom loo koy yóbbante mu ngi lay dama koy ñaanal wér mm-hmm. di ñaanal sama mm-hmm. suñu borom suturaal ñu may ñu dam ci barke yeneen <laughs> yooyu yëpp loolu amul problème <laughs> su ma ko daanee ba pare ba jëli ko jaajëf gars 3S Pro